distribution bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu àq di wax kàddu goo xam ne donte sama gémmiñ lay bàyyi ko it kàddu famille bi yëpp la la dale ci alaaji Badara Sakho muy xalifa bi sëriñ Abib Sakho muy xalifa alaaji Ibrahima Sakho ak seeni rakk Babacar léegi la fi jóge sëñ Babacar papa Iliman noonu ak ñi nga tuddal sa bopp ñoom ñëpp li may wax seen kàddu la ñoo ma ko gën a xam gën ma koo mën a wax xam naa dañ ma sédd rek at mag jox ma seen kàddu ma wax ci seen tur barab bi nag mu ngi bëgg a yàgg fii foorale woon àll kenn dëkku fi woon ji bu saaxo yal na yàlla doo leeram taaf na ci barkeem 1958 mag ñi dëkk Ngekoox te ku demee ni góor gi Baytur Juuf ca la bokkoon alaaji Soose Faal ca la bokkoon ak yeneeni mag ñoo ko toppatool barab bii ba mu jot ci 1958 la ko gor mu nekk tool tabax na fi jumaa fii booba àll la xalaatoon woon mukk ne kër dina ak si fii mas na wax bés ne di ngeen jaaxle li tax ma def jàkk ji ci àll bii te kenn dëkku fi ñu ne ah kañ mu ne yeneen bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa ku fexe ba jullit bég yàlla bindal la yiw ku fexe ba yéefar mer yàlla bind la yiw kon su ma ko defee fii ku fi jaar tey jullit di nga bëgg ku fi jaar doo jullit di nga am loo xari looloo tax ma def ko fi waaye nag bu leen fàtte ne maam Ibrahima ba muy sanca Kaaba ga ci foore la ko defoon te man nag Ibrahima laa tudd duma sax booba waaye yàlla booba moo yàlla bii cinquante-huit mu nekk tool nu nekk fi man fi laa dëkkoon mosuma fee jóg. ko su ma fee jóg ba 1970 ci la ñu door jëkk a def julli salaat tasbiha bi 1970 moom yàllaa ko binde woon muy koo xam ne fu mu toll mu ngi seet lu jëriñ jaami yàlla yi lu yombal seen yiw lu yombal ñu jubóog seen borom lu yombal ñu bëgg a yonent bi loolu moo doon mbiram salaatu tasbiha yàgg na fi ci téere yi ndax góor gi abache bàyyi la ci yonent bi te moom la ko yonent bi joxoon kon fi la nu ko fekk mu ngi woon ci téere yëpp nit ñaa ngi ko daan def gaa waaye defin wee wuute ko daan defit sa njaboot sa biir kër sa biir néeg def ko muy sa jaamu yàlla goo xam ne personnel la waaye moom moo gis ne njariñ lu toll ni kenn waru ko wéetoo benn famille waruñu ko wéetoo benn tarixa waruñu ko wéetoo addina jullit yëpp ko war a bokk jëkk a julli nag saw tasbiha bi ci mbooloo ala nan moo ko jëkk a def fii ci réew mi waaw julli ko ci mbooloo mbooloo moo xam ne ci biti la ñëpp a ko fekke ci alaaji Ibrahima Sakho la jëkk amee ci Sénégal gi boobaak léegi nag ñëpp a ngi def ñu bari waaye la hadis ba yonente bi waxoon rek képp koo xam ne def nga sunna bu rafet ku la ca roy ba ilaa yawmal xiyaam am nga ca yool ba kon moom yoolam te julli gii lu yaatu la yal na yàlla nangu barke yonent bi sallallahu boobaak léegi it wax naa la sabab bi sabab bi mooy bëgg ñëpp jariñu rek bëgg ñëpp a jariñu loolooy sabab bi diggante 1970 ba 94 moo fi toogal boppam lu fi xew moom la lu ñuy def moom la wax naa la fii àll la woon boo xam ne am na jamono nit ñi mu ñu feelal si jaadu julli rab yëpp fi nekkoon ndax dëkk bi mu nga yemoon ca bunta dëkk fañ ko rob fa jàkka ja fa la dëkk bi yemoon noo mujjee woon la ko dale foofu ba fii yëpp àll la kër amu fi nit amu fi kenn dëkku fi waaye ci mbaaxam ak ndimbal lu ko yàlla dimbaleek barke ay way juróom ak sëriñam ci la yàlla dogale yépp a soppeku ba dëkk bi ëmbanu tey jii nu ci biir dëkk bi malgré tout ça sori na waaye dëkk bi agsi na loola nag ku toog di xaar yàlla foo koy xaare yàlla fekk la fa bismillah mok lolo ba mu ko khalaté dafa seeti alhaji abdul assis si dabbaax khalif général de Tidiane bu alhaji malik ci ak mom ndax kër gi di caaxo sen wasila ak luñu ñu kër malik la ndax góor gi alaaji kham saaxu ku ko xam-xam ko malik alaaji ibrahim saxu mi di domam non la may babakar Si noonu la meloon ak alxaaji Mouhamadul Mansour Baal xaw mi sëñ Habib si taawa moom la ko tudde nga ci des ñëpp sëñ Abdou nag nekk xaritam looloo waral bi mbir mi jotee mu dem seede sëriñ Abdou waxtaan caag moom mu rafetlu ko lool naka nag bu ko gàttal na yaatu demal Touba sëñ Abdoul Ahad boo fi nekk boobu jamono boo fa jógee demal seeti euh, wala sëñ fallu kenn ci ñoom demal Canaba. dama njaasan dama layen fu kilifa diine ne ag fa waxtaan ak mom mu def tour boobu yëpp itam nyep ñëpp rafetlu ko ñëpp ci ak mom booba jamono waa ciara ba ñoy jité tak salat takusan bi Wa wa jamal julli tisbar ji sang ba ca wakam seddo nañ ko ci julli booba jamono joxewu ko alaaji modou Fata saxu ginnaaw gi la teg ci loxo alaaji Modou Fatal Sakho Modou Fatal Sakho bàyyi la ci ndax bàyyi maam la ci nun mu yor ko di ko julli di ko julli di ko julli ba am ngànte tukki alaaji Amadou Sakho bàyyi kii julli na ko alaaji Badara Sakho julli na ko waaye ginnaaw gi nag ñu delloo si waat ci ñoom jox ko góor gi Omar Sakho moo koy jiite ba tey jii loola ba mu déparé bàyyi fi njaboot gu baax gii alhaji abib saaxoo di taw bu gor di Khalifah ñi ñepp di ay rakam mu toxoo tok ci bop xalé yi ñu and ak mom man seen bàyyi dama leen di wéttali ak di leen jappalé ak ñewante leen mo waral ba dëkk ci Allah bi ñoom ñu nangul mo lolu fa tabarakallah lolu moy dox be fi ma tok di waxante ak yow Tiwaawan serigne Abdou ñewul bopam bi yalla dogalé mu demit ku fi nekk xalifa sëñ Mansour daana yeble sëñ Abdoul Aziz Amin ndaw mu si fee jóg sëñ Babacar Sy Mansour at mu ni mu ñëw te yàlla dogal na mooy xalif central de Tidiane nu ngi koy séentu di ci profité nag di ko yëgal àddina bi yëpp këru diina boo xam ne noog yow a bokk ñu ngi la ciy woo altine lay doon weeru koor lay doon dañu koy teel a def pour yeew yi ñu sent siise ñu mën a teel a dellu ca njaboot ga balaa jant bi so am na solo maam Tamsir defe naa ni euh, kàddu ko woote gi kàddu pàttali gi ci wàllu ci wàllu coslaay bi lu ama am solo la xam naa ni dinañu dinañu dellu saat euh, ma jox la ma jox la nga wax li nga bëgg a wax ma ah, ah kay ñun kay ñun kay la ca des nag moo di gërëm njaboot gi fii neexul a tooge boo fi ñëwee nawet xam ne neexul a toog day sax ñax sax garab waaye njaboot gii ñooy ñëw futti ku nekk ak man fii bu dégg bëccëg bu boo ñëwee gis barab bi set nii président Youssou Diagne mii kilifa la su bés bu xasee jot mbaa mu jub si amatul kër gisoo poussière bii gisoo ngelaw lii gisoo tàngaay bii këram mel noonu xam nga boo demee këram foto yu nooyee fane climatiseur yu fi a fa nekk fa la kay bayyi ñew tok ci ngelaw li ak poussière bi feeg liggey bi jeexul du fi jóg ñi nak ay rakku serigne Habib lañu Alaaji badra saxo ngi ni Alaaji Modou benga saxo ngale ki mag la ci kër gi di mu xadam Alaaji Mbay Ngom ki mam iliman saxo la tuddu kele Tafsir saxo la tuddu Lamine jag Male mo doon dawal serigne bi kele Ibrahima saxo jandi tuddu ki Oustaz djouf la tuddu kii Mamadou Sakho la tudd ñii bi nga limee alaaji xaasim lim bàyyi alaaji Malick wax seega ma wax la ñoom Habibakin Babacar bëgguma lim ñëpp ñii ñoo njabootu kër gi ñii nag ñoo fi taxaw nek feek man nak guddi ak bëccëg day saan kii sol jàllabi bi sama goro la mooy nijaayu njaboot gi mooy alaaji Burhan Ndiaye ba alaaji Daouda Ndiaye bàyyam wëliyu la waaye alaaji bu Sakho la ko jox nag ndax mooy denc magam moo moo magam mooy woy juru xalifa kër gi ak ñi ci topp ñëpp mooy seen nijaay moom it fii la yaroo ci tool yi la nekkoon guddi ak bëccëg fi la daan nawet di béy yaram weeka mayetul waaye xol baa ngi fi ñii nga gis ñëpp nag la ko dee sëñ Habib sëñ Babacar ñoom ñëpp maa leen yoroon fii ci tool yi ma leen seen baay joxoon fi la ñu jànge mbéy fi la ñu jàng sàmm fi la ñu jànge lépp ba tey nag ñoo di samay patron moom mu ñëwaat nekk ci seen seen gannaaw ñu gërëm ñëpp nag sant ñëpp bàyyi limaan Juuf a ngi ni jóge Mbuur moom itam doon kenn ci kër gi bàyyam bi mu xaddam bu ci kër gi dëkk ca bulel fa tabaarakalaaw ñii daal fa tabaarakalaaw fekkee juuma ma alaaji Assane Ndiaye anamu Assane kii nag moo yor tool bi moo fi nekk guddi ak bëccëg caabi kër yëpp moo leen yor lu fi xas dugg ci loxoom lay nekk lu mu joxul nit boroom da ko gis maa nga xam ko Alaji sen jay mi te du xale ñi la fi alaaji bu sax bàyyi woon bàyyee maak ñom ci tool yi ñu ngi fi nek toujours nak pour préparer barab bi di topoto julli gi te di ka xaar julli gi nak ni nga xamé rek baye abache la ko yonent bi joxoon amna nay wuute abache mi jur te yonent bi joxoon ko julli gi def na ci leral yu bari alaaji bu sax gàttañ lu won dafa na ay téré dafa ne téere boo rek ka def téere boo xam ne julli jumaa rek ka tax jóg boo xam ne aji màkk rek ka tax a jóg ak boo xam ne toppatoo kuy waaj uyu ji boromam rek ka tax a jóg téere yooyu yëpp defal ne mu ngi circulé yooyu yëpp ku ci am benn daa xam exactement julli gi na muy tëdd ak nu ñu koy defalee